salaamaaleykum gars nuy naa leen dal leen ak jàmm ci Sen Sport 221 dañu ko tàmbali ak ligue sénégalaise football professionnel résultat wu match yi nga xamante ne moo xewoon tey jii ñeenteelu bëccëg bi lañ doon amal tey jii ci li nga xamante ne mooy championnat bi dakaar sacré kër ak Diambar dañoo matt nul zéro partout Teungueth FC dafa dal di dalal Ndiambour dóor ko 2-0 Jaraaf dafa dalal AS Pikine dóor ko 1 Génération Foot moom Casa Sport moo ko dal di fekki dal di koy dóor 2 buts di des ci jongante yi dinañu ko wéyal ni ki suba ci dimanche ji ki nga xamante ne mooy Pape Matar bi nga xam ne mu ngi footballé fële ca Belgique ci club bii di Ostende moom tey ji dafa dal di marqué beneen yoon mu nekk fukkeeli balam ak benn ci saison bii kon am na onze bii ci li nga xamante ne mooy première division bu Belgique moom kii di Pape Matar bokk na ci attaquant yi gën a nekk en forme moom ak ki nga xamante ne mooy Habib Diallo voilà kon Matar gi am na 11 bi ci li nga xamante ne mooy championnat foofu la ca Belgique. Boubacar Camara moom kayit xibaar dañoo fessel ne Newcastle United bokko na ci club yi nga xamante ne bëgg nañu ko xam nga démb wala barki démb rek kayit xibaar dañu doon fessel ne déeg ki nga Boubacar Camara Manchester United ñoo ko bëgg signé ngir remplacer ko Paul Pogba tey jii nag kayit xibaar fi ñu Newcastle United jamono ñoo ci dugg bëgg nañu signé Boubacar Camara bi nga xamante ni ay weer képp a ci contrat ak club di Olympique de Marseille Théo Hernandez nekk défenseur bu AC Milan latéral la nekk di footballeur fële ca AC Milan xibaar yi fësal nañu ne Chelsea football club dañu ko bëgg moom kii di Théo Hernandez mu nekk joueur nag boo xam ne ko xarañ la ko mën a football bokk ci ñu gën ràññee ci at yi ñu weesu xam nga moom ancien joueur Real Madrid la ndax Real Madrid dañu ko jëndee woon Alaves waaye nag bi mu fa ñëwee amul woon temps de yi ñu weesu ràññee foofu la ci Italie Chelsea ni kii seen défenseur bi di Ben Chilwell dafa daal di am gaañu gaañu Théo Hernandez mooy ki nga xam te moom la ñu ko bëgg remplacer buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. ki nga xamante ne mooy Marcus Rashford nekk attaquant bu Manchester United moom nag yi xibaaru dañoo ñëw ci ne Barcelone noo ko bëgg a signé Barça kii di Rashford te it Mar Rashford xam ne dina ko neex loolu mu ne Barcelone amaana dinañu fay lu toll ci 70 millions d'euros bu ñu bëggee signé ndaw bi Rashford nag nekk joueur boo xamante ne temps de jeu am ni ki ji dafa daal di limité at yi ñu weesu ndax at yi ñu weesu bu ñu xoolee bu baax moom bokkoon na ci joueur yi gënoon a important foofu la ci Manchester temps de jeu am dafa daal di limité te moom loolu nekk na loo xam ne amaan na mën na ko poussé ba mu génn club boobu li des ci contrat am ak club boobu di Manchester mu ngi toll ci benn at ak ndax ci la contrat am a jeex kon at ak moo ci des ci jamono yi comme ni leen ko waxee Barcelone bëgg nañu ko ci janvier bii te amaan bu ñu ko bëggee signé dinañu fay lu toll ci millions d'euros championnat bu Angleterre moom tey jii mën nañoo wax ne daanaka benn match képp moo ci am jongante yi waroon a am tey yépp dañu ko ajandi ba jëmi jamono li ko waral nag mooy lépp loo xam ne mu ngi aju ci lii di corona bile jamono yi mooy lëmbee foofu la ci Angleterre. ndax mën nañu wax ne tey jii lu toll ci juróom wala juróom benn jongante waroon na xew waaye benn rek a ci xew mooy bi doxoon diggante Leeds United ak Arsenal te Arsenal mujjee gagné match bu waroon dox diggante Manchester United ak Brighton dañ ko ajandi Aston Villa Burnley waroon nañoo jouer waaye boobu amul Southampton waroon jouer contre Brentford Watford waroon jouer contre Crystal Palace West Ham United contre Norwich City match yooyu yëpp amul benn ci am mooy Arsenal Leeds United. ci nga xamante ni mooy père Aymeric Aubameyang bi nga xamante ni jamono yi moom mu ngi foofu la ci Arsenal te jamono yi nag mu nekk ci jafe-jafe ndax gis ngeen ne match yi Arsenal yi wees yëpp gisuñu ko ci depuis mu amoon di gamaam tukkim boobu la ca France ba dellu si ak la ca xew yëpp jamono yi mu nekk joueur boo xam ne kat dégg nga buy sukkandakoo ci kay di xibaar dañu koo ber te amaan na kat du joué waat wala bokk du entraîné sax ak club boobu di Arsenal fileeg balaa ñuy demee ci li xamante ni mooy kan bi ndax mën nañu wax ne daanaka ñetti semaine ci des te fileeg ñaari semaine yu bari ci ñoom dinañu am dégg ndigal ngir war a mën a dem ci seen i club wala seen dëkk dégg nga kayiti xibaar yi fesal nañu ne jamono yi ki nga xamante ne mooy Pierre-Emerick Aubameyang problème am bi ak Arsenal jeexagul gannaaw bi ñu ko beree ci match yi weesu yëpp football ci benn ber nañu ko ci li nga xamante ne mooy tàggatu bi ndax entraîné tul ak club boobu dañ ko ber muy entraîné moom kenn képp te loolu mën na wéy ba li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique bi bu fekkante ne dara soppeekuwul si buñ sukkandekoo ci kayiti xibaar bi di Daily Telegraph ki nga xamante ni nag mooy ancien joueur Barcelone bi nga xamante ni mooy Moriba nga xamante ni daanaka ay weer képp la dem foofu la ca Leipzig moom nag amaana sax dina joge foofu nga xamante mooy Leipzig ndax kat bi ñu ko signé ba tey de li ñu gis mooy daanaka duy football bi saison bi tàmbalee ba tey 100 minutes képp la joué maanaam téeméeri minutes loolu nag bu ñuy xool daanaka benn match ci lay toll moom kii di Moriba loolu war na ba jamon yi ñii di Leipzig ñu ngi seet ay pexe ngir war ko mën a déggam am appelé ci beneen club ci li nga xamante ne mooy janvier bi ndax kat coach bi nga xamante ne moo am Leipzig moom boolewul ki nga xamante mooy Moriba ci plan am loolu moo waral ba dégg nga muy dund ay jafe foofu li muy football daal bariwul ab pare nañu ngir appelé ko buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. ki nga xamante mooy Dani Ceballos bi nga xamante ni Real Madrid la bu ñu appelé woon at yi yëpp ci Arsenal te mu dellu ay weer ci ginnaaw. waaye nag mu dal di am gaañu gaañu boo xamante jël na ko ñeenti weer di faju wér na ba bokk na ci groupe boo xam ne dinañu football ni ki suba seen diggante Cadiz Real Madrid dafa war a jouer ci dimanche ji waaye nag ki nga xamante daanaka ñaari at yoo xam ne footballul ci club boobu xam nga moom dañu ko ablé woon fële ci arsenal attaque genn wala dégg nga maam daal dina ko fay def mu dellu si nag dégg nga maam toogaat ñeenti weer yoo xam daf ko doon faju ndax gaañu gaañu bi mu amoon jamono yi moom daal dina amal retouram ci jamono boo xam real madrid seen jour am na ci ñoo xam ne am corona ku ci mel modric asensio ak ñeneen ñi ñu fi limoon ñoom ñëpp dañoo am corona ki nga xamante ne mooy dani sabayos ak yenn ci jour yoo xam ne dañ leen jëlee ci équipe réserve bi dinañu teew ci jongante googu war dox diggante real madrid ak ñii di waa cadiz ki nga xamante mooy Karim Adeyemi Karim Adeyemi bi leen di footballeur nga xamante mooy ca Salzbourg kay xibaar dañoo fësal ne jamono yi dafa am club yu mag yoo xam ne ñu ngi koy topp foofu la ci Europe waaye yooyu yëpp dafa leen rejeté moom booy bi ndax bokk na ci Barcelone Real Madrid Inter de Milan ñetti club yi yëpp bëggoon nañu ko waaye moom dafa leen daal di rejeté bëggul a joué foofu li fi mu bëgg a footballeur nag mooy Borussia Dortmund ne mooy Erling Haaland moom mën nañu wax ne ki daaw Dortmund dañu ko signé woon foofu la ca booy bi xëy na tànk yooyu la bëgg a topp réservé na club yu mag yoo xam ne waroon na fa mën a dem moom Dortmund la bëgg a football yi bokk na ci Barcelone Real Madrid ak Inter de Milan yooyu yëpp daf leen dal di pour dem rek euh, fële nga xamante ne mooy Borussia Dortmund muy sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Paris Saint-Germain seen xale bi nga xamante ne moom la ñuy wax Xavi Simon nekk xale bu mën a football moom nag contrat am dafa war a jeex mën nañu wax ne daanaka li ci des bareetul ñoom nag dañu ko bëgg a yokkal li nga xamante ne mooy contrat waaye moom nag dafa dal di lànk buñ sukkandekoo ci kayiti xibaar yi déggoo amagul ngir war a mën a dégg moom téye booy bi foofu ci club boobu waaye li nga xamante ne mooy condition yi nga xamante ni agent am ko mooy bu fekkente ne daal moom duñu ko boole ci li nga xamante ni mooy eh, équipe bi maanaam day bokk ci li nga xamante ne mooy équipe A ngir war a mën a jouer muy équipe bu Paris Saint-Germain bu fekkente ne daal loolu mën na nekk moom mën na ñëw xaatim li nga xamante ne mooy contrat bu yees waaye bu fekkente ne nag dañ ko bëgg a bàyyi ngir muy jouer ci xale yi wala ñu koy teg fële di ko seetaan bu dee loolu moom duñu xalaatuñ mukk di yokk li nga xamante ne mooy contrat bi moom xamante ne mooy Xavi Simone UEFA Nation League wala Ligue des Nations bi nga xamante ne dañu koy amal foofu la ci Europe kii di xibaar dañoo fesal na jamono yi dañu ko pare ngir dugal ci sax ay équipe yoo xam ne dañuy jógee fële ca Amérique du Sud buñ sukkandikoo ci kii di xibaar yi maanaam ci loolu nag mu ngi xew ci atum 2024 nga xamante ne ñoo di ay équipe yu jógee foofu la ca Amérique du Sud dinañu war a mën a ñëw jouer ji si li nga xamante ne mooy UEFA Nation League bii nga xamante ñu ngi koy amale fii ci